li am solo nag mooy lii ñu toll président Madické que dafa jël engagement bu am solo mooy dafa fas yéene toog ci opposition bi xeex jàkkaarloo ak président ak ak kii nga xam ne moo fi fas yéene foqat ci nguur gi toog fi te ñoom ñëpp di cinquante daay taxaw jël seen responsabilité daal ne doonuñ accepté wuñ tey li nga xam ne moom la siis bi génnee d'accorduñ ci ñun ñii tey loolu la ñuy valider encore di di d'accord ne moom mii nga xam ne mooy mag Sall fas fi yéene toog ñun accepté wuñ ko tey mu doon président de la république bu Sénégal duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg ndax li tax mënuñ ko accepté mooy ñëpp gis nañ Sénégal ni élection yi demee xam nañ ko moom mu def ci loo xam ne si tey système bi baaxut dara loo xam ne si lu jëm ci wàllu élection yi la lu am baaxut surtout lu dul bisu scrutin bi rek mais planification bi lu jëm ci fichier électoral bi dara baaxu ci kon loolu moo tax ak yiñ gis yëpp yéen journalistes si ngeen man koo témoin mu doon yoo xam ne si munta ànd ak ay élection di noppi di jàmm yooyu moo tax ni suñuy candidat di ñeenti candidat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci opposition bi taxawee tey d'accord suñu benn pacte ne ñoom lépp loo xam ne si suisse bi wax na ko tey d'accord ci ñun tey au niveau de département Mbacké surtout arrondissement Ndam noonu lañ ñàkk a d'accord ci li nga xam ne moom la justice Sénégal wax kon loolu lañ doon wone ñu am luñ bëgg a leeral nag lu am solo président Madické day ko ku ku gore ku yiwe du ko yaroo ci kepparu Serigne Touba ba tax mënut wax dara te am lu am solo lu liggéey ba àgg ci élection yi yàq ko yàq yàqin woo xam ne si yàqin wu jégg dayo la te ay camaratu partem kenn jiituwu leen ci rawatina kii nga xam ne tey moom la doon guddil di ko bëccëgal muy président Abdoulaye Wade muy dox doxin woo xam ne si gora rek moo ko tax a toog ba heure bii am jom doon taalibi Serigne Touba ak sàmm kóllëre diggante bi Serigne Touba moo tax mu nekk ba heure waaye ñun li am solo teñ di ko def mooy dafa mel ne ci biir campagne bi dañu gis ne maanaa kii di suñ secrétaire général partie muy Madické euh, muy président Abdoulaye Wade ñun biñ demee tey ba sus bi joxe li nga xam ne moom la war a joxe tey muy loo xam ne lu bett sénégalais yi la lu bettul sénégalais yi la ndax ñoom xam nañu ñun ñëpp ci korompi la lañuy dox ñu gis ne nag billet boobu mu am moom Macky Sall biais bu rëy boobu moo am tey ba taxaw ci kanam Sénégal yi ba kenn mënut ta wax ak moom biais boobu président Abdoulaye Wade moo ko may. ndax tey bu compétiroon ci élection yi façon bi mu ko mare bi mu ko mane te yàlla joxe ko ko noonu dana sauver honneur Sénégalais yi tey mais tey sénégal Sénégalais seen jaaxle Abdoulaye Wade moo ko yokk moo ko dindiwut ndax moom rek mooy ki nga xam ne képp ku mu àndaloon ci opposition bi tey duñ ko wàññante weex ak Macky Sall kon bu bañee daan du dem ci élection yi loolu amul fu mu ko teg dimbaliwul Sénégal yi dimbaliwul askan wi tey fi Sénégal toll fi Sénégal toll Macky Sall jël dugal ko ci ndëgg sërëx goo xam ne kenn mënu ci dara kilifa diine yi wax nañ mu bañ kilifa aada yi wax mu bañ Abdoulaye Wade rek moo waroon a taxaw jël ay position tey taxaw ne ko baare ko ci ruub boobu ànd ko ak ñëpp ñoo xam ne si ñi ñi ngi ci opposition bi mais dafa mel ne nag complice bi nga xam ne moom la ñuy tuumaal président Madické di ko di ko tuumaal ku ne tey tey loola kon moom la Ablaye Wade def tey ba tax Macky Sall am biais bii mu am sañ a taxaw ci kanam senegal yi wor leen trahir leen képp koo xam ne si woteeloo ko woon woteelu nga sa daa tey am nga yaraa nga tey am nga naqari tey. waaw ñun xam nañ ne loolu moo tax ndax ñun xam nañ senegal waa seen xol fi mu toll ak président ma Madické Niang kon bu demee ba man personnellement Abdoulaye Wade moom wax ne ma Macky Sall la président Madické Niang di liggéeyal loolu moo ma wax. bu fekkoon lu may gëm la ak ñi ko wax ñëpp tañ gëm ko tey moo tax loolu véhiculé wu tasaare wu ba ñëpp gëm ne loolu lu dëggu la ndax bu buñ demee ba moom mi nga xam ne moom la doon sonnal di ko guddi di ko bëccëgal mu man a taxaw ne Macky Sall lay liggéeyal man preuve bi ma am mooy Abdoulaye Wade làmmiñam sama nopp moom waxal boppam taxul ma gëm ko parce que li ma nit ki wax ci làmmiñam moom laa gën a gëm ci liñ ma nettali ci moom kon loolu moo tax ma gëm ne message boobu bu doon véhiculé nga xam ne dem na ba sax ci ñi nga xam ne bi ñuy toll ci candidat recalé yi ñi nga xam ne président da doon wax ak ñoom pour ñu ñëw jàppale ko am na ñoo xam ne baat yooyu leen Abdoulaye Wade wax moo leen tax dellu ginnaaw jàpp ne waruñoo ànd ànd ak président Madické Niang